alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu TV cosaanu feetu bi bi ci lañ mboolem taalibe yi nga xam ne ñëw nañu. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. kenn ku nekk mu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa jëmmi bopp. ñu ngi kontaan itam ci yëngatu bi nga xam ne yàlla rek moo tax ñu yëngatu ko. mooy ñëw ziyaara si baay. am nañ lu wër na. waliyu bu mel ni baay. waliyu bu mel ni baay. képp ku jóg ziyaara si ko. képp ku jóg ziyaara si ko. tànk yi ngay ñëwee ak yi ngay delloo yëpp. tànk yi ngay ñëwee ak yi ngay delloo yëpp. yàlla dana ko yëkkatee sa daraja. dana ko faree it sa mboole mi bakkaar. يندل صلابة برامم تهدد سقطي يلا وحنا نبقى لمهم يلا نيهلنا نيقلنا بني بقن تجموم في زيارة هنت شموم تجكي هاله نجرموم تجكي هاله نجرموم تجكي هاله نجرموم ñeent yooyu yëpp. ñeent yooyu yëpp. dëggu na ci taalibe bàyyi. yàlla rek moo tax ñu bëgg ko. yàlla rek moo tax ñu ñëw ziyaara si ko. yàlla rek ko. yàlla rek moo tax ñu ñëw di jëkkaale ak moom. yàlla rek moo tax ak moom. ba sa tool ñoree am xaaj boo ci jël ñëw jox ko ko ngir yàlla. dana la ko soppandikul ci yàlla moom itam. dana la ko soppandikul ci yàlla moom itam. du ko def mukk ci ay bànneexi bakkanam. du ko def mukk ci ay bànneexi bakkanam. dana ko soppandikul ci anam boo xam ne ci amee ngërëmal yàlla te mënuloo ko sama. dana ko soppandikoo ci anam boo xam ne dañ sa bopp. loolu rek jar yëngatu bi. loolu rek jar yëngatu bi. kon sëriñ bi gërëm na leen bu baax a baax. kon sëriñ bi gërëm na leen bu baax a baax. mu leen di ñaanal yàlla itam. mu ngi leen di ñaanal yàlla itam. lépp lu ngeen mën. lépp lu ngeen na ngeen mën lu ko xëpp yaara bi. lépp lu ngeen ay baay bii. lépp lu ngeen ay neex ci pays baay bii. waxtu wu ne. na ko yàlla mën na mën loo yaara bi. ci yéen. yal na barkeem wàcc ci yéen yaa rabbi. yal na wàcc ci seen njaboot. yal na wàcc ci seen njaboot yaa rabbi. yal na wàcc ci seen i yëngatu ak seen dal yëpp. yal na mën na loolu. yal na ko def te na leen wóor na itam. te na leen wóor na itam. waaye mi ngeen ko doon ba léegi rek moo fi nekk mu ngeen te moom ngeen koy yót. moom su leen gërëmee moom sëriñ bi. rek bàyyi daal di leen gërëm. waaye nag su gërëmee. waaye nag su gërëmee. Cheikh Tidiane gërëm radiyallahu anhu yonent bi gërëm sallallahu alayhi wa sallam. moo tax nañ gën a tëkkaayu. luñ def rek nañ ay na ne bu beneen yoonee danañ def lu ko ëpp. luñ def rek nañ ay na ne bu beneen yoonee danañ def lu ko ëpp. loolu rek mooy dox bi la mooy dox bi wér. te loolu nag mooy dox bi nga xam ne mooy dox bi wër. aarifu billaahi. aarifu billaahi. bakkaaram yëpp. bakkaaram yëpp. mooy lu mu def tey bu ëllëgee mu def lu ko gën a rëy dafay jàpp ne li mu defoon démb dafa manqué. mooy lu mu def tey bu ëllëgee mu def lu ko gën a rëy dafay jàpp ne li mu defoon dafa manqué. fekk dox bi noonu rek la war a tëddee. fekk dox bi noonu rek la war a tëddee. nañ gën a góorgóorlu. nañ gën a góorgóorlu. bu ñu dara fëkk. bu ñu dara fëkk. bu ñu dara bu ñu dara yàqal ñu bëri nag aw nañ yoon ñu bëri nag aw nañ ciw yoon dem dem te suñ continué woon rek àgg ci seen bëgg seen bëgg-bëgg yi te buñ continué woon rek àgg ci seen bëgg-bëgg yi waaye gàllankoor waaye gàllankoor dana gaar ñeen nag ci nit ñi ci nit ñi waaye yàlla bu ñu gaar ñun yàlla buñ yàqu yàlla buñ yàqule lépp lu ngeen ci def lépp lu ngeen ci def balaa waxtu way si déwén. yal na ngeen gis njëriñam. yal na ngeen gis njëriñam yaa rabbi. yal na ngeen gis barke boobu itam. yal na ngeen yàgg a ñëw di ko def yaa rabbi. yal na ngeen def te yàgg fekk sëriñ bi. fekk ñu fi ñun ñëpp. yàlla mën na loolu. yal na ko yàlla def yaa rabbi. sëriñ bi yal na ko fi yàlla yàggal. yàlla may ko wér. gudd a gudd ci kanam. yàlla dundal ko lu gudd a gudd ci kanam. ba nga xam ne. seen bu yi Mawlana Cheikh Ibrahim am. seen bu yi Mawlana Cheikh Ibrahim am. dana ko mottali ci loxoom. dana ko mottali ci loxoom. yéen ñëpp ngeen bokk ci. yéen ñëpp ngeen bokk ci. yàlla mën na loolu yàlla na ko def yaara bi. yàlla dëgëral ay cëram te defal ko lim ca nam ko bëggee. yal na ko yàlla mën loo. yal na ko yàlla mën loo. yal na ko yàlla mën loo. yal na ko yàlla mën loo. waxtu wu ne rek lu mu bëgg yal na ko yàlla mën loo. waxtu wu ne rek li mu bëgg yal na ko ko yàlla mën loo. ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. ci barke Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. ci barke Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi leen di xamal ne bés bu màgg la. Mawlana Cheikh Ibrahim. Mawlana Cheikh Ibrahim. li ko daan kontaan loo ci ziyaara yëpp. li ko daan kontaan loo ci ziyaara yëpp. mooy gis jaam yi ñuy yëngatu jëm ci seen borom. mooy gis jaam yi ñuy yëngatu jëm ci seen borom. ndax luñ mën di joxe rek. ndax luñ mën di joxe rek. daf leen koy joxe. daf leen koy joxeel. waaye jaam yi buñ yëngatoo rek xam nañ ne dana njëriñu. waaye jaam yi buñ yëngatoo rek xam nañ ne dana njëriñu. benn nit dafa jóg di ziyaara ji mbokkam ngir yàlla. benn nit dafa jóg di ziyaara ji mbokkam ngir yàlla malaaka ma feeñu ko ci melaw nit ne ko foo jëm ne ko foo jëm mu ne ko dëkk bii ci kanam laa jëm ne ko loo fay wuti mu ne ko dama faa am mbokk mu ne ko dama fa am dama boo fay doxi mu ne ko ndax dafa am itte boo fay doxi wala looy defari ci moom déedéet damay ko déedéet damay dem di ziyaare ji mbokk moomu ngir yàlla. mu ko man du ma nit mën a kala. mu ne ko man mii di wax ak yow duxuma nit a kala. sa borom moo ma hebal mu hebal mu ne. jóg moom ngir yàlla. jóg bii nga jóg di ziyaare ji sa mbokk mii ngir nangul na la ci sa mboole lu jëf. kon nag ku jëm ci ku mel ni baay. kon ku jëm ci ku mel ni baay. looy am looy yow. lu bëree bëri bëri. lu bëree bëri ngay xam-xam na leen ko yàlla jox yal nañu ko yàlla jox yaara bi. yàlla wattu leen. yal na yàlla wattu leen. ku ci ñëw yal na nga dellu ci jàmm. ku na nga dellu ci jàmm fa nga baxee ko. fekk sa njaboot ci jàmm. yàlla moom dañ koy ut lor ko am. yàlla moom. dañ koy wut soo koo xam. barke itam dañ koy jënd. barke bi itam dañ koy jënd. yéen a ngi góorgóorlu yàlla na leen yàlla nangul. yéen a ngi na leen yàlla nangul yaaro bi. ci barke Baay radiyallaahu anhu. ñu jox mu leen. kon ñu ngi jox sëriñ bi mu ñaanal leen. paree rek ku bëgg a éweeku ngaa éweeku. bu paree Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. अमीन याद अमीन